Euh, man la Mamor Sarr secrétaire général UGTEL Touba tey nag dañoo woote woon ngir def benn mise au point par rapport ak yi ñuy dégg ci fii ci Touba yu mel nii maanaam li ñu fi dégg mooy ay candidat déclaré yoo xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi di wut si ay parrainage maanaam ci turu suñu parti maanaam seeni ndaw yi ñuy yabal ci dëkk bi dañ naan Karim moo leen wax maanaam ñu pare parrainé yenn candidat ki ci gëna fa ci candidat yoy mën nañu ko citer eh, Boubacar Camara dañuy wër di wax naan Karim Wade ak Ablaye Wade ñoo leen délégué pour ñu wër ay parrainage ci turu Parti démocratique sénégalais alors que ñun en tant que structure légale bi nga xam ne ñoo jiite ndaw yi eh, structure bi nga xam ne moo jiite ndaw yi fii ci Touba bi ñu suñu investigation jot ay kàngam ci parti bi mën nañ cee citer sax ci ñu jot ku mel ni maître Madické Niang leeral nañ ñu ne ñu parti bi délégué wul kenn benn de candidat déclaré pour wan ne nañ ko wutal ay parrainage rawatina Boubacar Camara moom mu di wër naan parti moo ko délégué pour mu wut ay parrainage ci au nom de Karim Wade wala Ablaye Wade